جنة به أرتجي الغفران من كل ذنة به أرتجي فتح المقالق كلها وقايتنا التيجان من كل شدة وكم أشتكي عند الإله زيارة هوايا ولكن العنان بقدر أنادي وهل يمكن نداء أخا الجواب هل دار يقضيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده أشهد أن لا benn ngoon la sans xadratul juma ab naaw xadratu tijaan amul coordonnateur lay am ak coordonnatrice lim doonul daayira moo waral du am président daayira nag gàmmu am mu bañ a am conférence am mu bañ a am du tee daayira moom mu ngi waaye ab naaw moom saa xadara amul kon li ñu sëriñ bi santoon mooy ndaw ñi taxaw waaye mag ñi gunge leen balaa ñoo def ñu dem laaji mag ñi kon sëñ Babacar jërëjëf mën nañ ne sa taxawaay boobu ba léegi daggul firnde bi mooy yaa ngi bàyyi yitte yëpp ñëw teew jazakallahu xayr waaye mbokk yi nga xam ne it ñoo coordonné lii muy jaru ko ñag ak mbokk yi mu àndal waaye it waa mbuur ñëw nañu sëriñ Mansour Cissé ak mbokk yi ñu àndal yëpp ñëw nañu waaye waa ndànd faalit jël jël nañ biis ñëw ngir gunge seeni mbokk taalibe kon noo ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm waa Jurbel ñëw nañu wax dëgg yàlla ñëpp rek ñëw nañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñëw nañ ci turu président Abnaaw Hadrat Tidiane président nag buñ ko waxee ca national ba la boobu lañ wax ne mënta ñàkk ëllëg booy def kayit day am président loolu moo waral ñuy tudd président ci national bi waaye yi ci des yëpp coordonnateur lay am muy Khalifa Silla euh, cordinateur national bi di Khalifa Fall ñëw nañ ci seen tur ñoom ñu wuutuñu ci yeneen xadara yi ñu def ci yeneen gox yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm mbokk yi ànd ak ñun ñëpp ñëw ci jotaay bi duñ fi nekk di lim ndax sëriñ bi la ñuy déglu te jotaay bi bëgg ñu mu gudd asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa moom ñu ànd fi yàlla def na ñu nekkoon tey jii ci sunu passation yi ñëw neen ba ci boulevard bi ñu woo ko téléphone urgence Dakar mu daal di dëpp mu ne ma foog ngeen dem parce que fee mënu faa dem rek di dëppaat il faut ma toog fa ngeen dem taxawal ma fa wax leen suma cofeel ci mbir mi ak li nga xam ne bi ànd naa ko ak ñoom parce que dëkk bi kat tey jii ñun ñii ñoo ko bokk di rafetlu bu baax nag sa teewaay fii sëñ bi ak délégation bi nga ànd ak yëpp ak shérif di nuyu imam bu baax ak ñëpp ñi nga xam ne fi ñu toll ñoo jógee fu sori ñëw ak si fii lii nag teraanga la lii fi ñu toll nii dañ koy rafetlu lool te ñu ñaan mu yàgg fi lool te ñu fekk ko déwén ñu fekk ay ati at sëñ bi nag dégg leen wax bi léegi wax bi mooy tey jii yàlla def na dëkk bi suñu loxo lañ ko te ñu bokk Mbàkke nag euh, daayira bi nag xam na li ni muy taxawee di leen jaam jëfal bu baax xale yi parce que liggéey bi ñuy def ñun gis nañ ko bu baax te itam ki njëkk a jël kàddu léegi responsable bi wax dëgg yàlla wax ji mu wax euh, soññ na ku nekk kon dinañ ci gën a taxaw gën leen a jàppale ànd koog yéen que bën fi ma si taxawaat itam danañ toog fii ñu ni ah wax dëgg yàlla de mbir mi yokk na yokk boo xam ne bi dégg nañ mbir yu jumaa yi dégg nañ jàkka yi dégg na itam soxla yi dégg na itam li ngeen def ca Dakar loolu yëpp danañ ci taxaw bu baax maa leen di sant leen gërëm di ñaan yàlla suñ boroom lépp leen fi ñaan suñ boroom may ñoo ko jërëjëf def saqaana allahu wa iyaakum من بحور فيوضاته أعظم الأواني وأحلنا وإياكم دار التهاني ورضا الله الخالد عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا ومربينا مولانا الحاج مالك عليه رضا المالك وعن سائر خلفائه والتابعين لهم صاحب السماحة والمشيخة والفضيلة حفيد شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أحمد التجاني الشريف زين العابدين صاحب الفضيلة الإمام يحيى آل ممثلا للإمام الأكبر السيد عبد الله بوسو أصحاب السماحة والفضيلة والسيادة أيها الإخوة أعضاء أبناء الحضرة التجانية أصحاب صلاة الفاتح وجوهرة الكمال أيها الحضور الكريم فبالأصالة عن نفسي والنيابة عن المالكية الكمالية نحييكم بتحية طيبة مباركة تحية ملؤها الإكبار والإعزاز قائلين loolu nag seen maam moo leen ko fàggul yóbbante nuyoo di ko jaarale ci moom mu jotalal nu ko monsieur le maire tabaarakallaahu lii nga jotal ci moom ngant la ñu nangu ko ko bu baax di am kontante ak mbégte ci seen teewaay fii ak délégation bu am solo bi naan dañ ko wax ni ko li nga wax ci ngëneel ci sa tariqa bi ndax am na kenn kenn ku la ku la ku la ku la tëdd ci jaamu yàlla yi mu ni waaw am na ku ma tëdd mu ni ko kan la mu ni taalibe bu bari pexe waaw taalibe bu bari pexe ñu ni ko taalibe bu bari pexe mooy kan mu ni mooy ki nga xam ni daf naan naa def lu ma neex su ma dee suma sëriñ yóbbu ma aljanna nee na kooku li tariqa bi di bari ndi ngëneel al irti sunu bi fa huwa aynul hilaaki loolu la cheikh wax nee ki ni Euh, wóolu naa pexem yàlla xam nga wóolu pexe yàlla mooy naa def lu ma neex te wa yamkuruuna wa yàlla nee na di ngeen di pexe man itam maa ngi tëral samay pexe waaw bu bu fekk bu pexem yàlla yéegee ci yow mi mu dugal la fu mu foo bëggul nag moo tax mu ni wóolu pexem yàlla ci def lu la neex maanaam sol koomum bu lay musal ci ay bàkkaar nee na bokk na ci wóolu pexe yàlla nee na soo ko defee nag alku nga man cheikh mënatuma laa jariñ dara moo tax tariqa bi da ngay boole nekk ci diggante yaakaar ak tiit waaw alxawf war waaw da am yaakaar ci yàlla ndax li ma wax cher yëpp waaw waaye nag nga boole pour di tiit nag ni ah mën nañu soppee ndax dañu ni sëriñ Alioune Guèye radiyallahu anhu dafa mës a wax sëriñ Cheikh ni ko boo gisee mag ñi bu ñu toogee ci no ci nen du toj mu ni ko mooy da moo di taazibul muti allazi lam yasillah ki xëy ba mu juddoo ba ni mu duggee bàmmeel musul tooñ mu dem ëllëg suñu boroom ni ko yow de musoo maa tooñ musoo def benn njuumte waaye dama lay tàbbal safara ah, lu tax mu ni sama namm na mu ci aju mu ni loolu moo tax mag ñi bu ñu toogaan waaw bu ñu toogaan xam nga Seydil Hadji Malick li mu liggéey yëpp li mu liggéey yëpp naan la allah rahmata rabbi naan euh, euh, euh, ni mu ko waxee ci wama safinatu turja gayra rahmatika wasma alamimati kulla alxalqi ah fu mu yegg kama wajal baxru la tàmbale baxru zambi yaa siqati wa inna ni rabbi xiftul xarqa yallaahu yàlla daf lay tabaxal chaise wurus tegal la ko ci sa digg ëtt ni lal bu ci toog waaw lal bu ci toogee rek mu dëkk sa néeg waaw moom day téye ko rek di ko wër ku ñëwit gis ko du ko yéem waaye yow mi yow mi ca toogul yaa koy yëg xam nga am na koo xam ni dana jaaxle bu gisee borom chaise wurus war toog ca kaw chaise ba mu lal romb jaanam wala mer gàddoom ca wetam tëdd yonent bi sallallahu alayhi wa da koo def ndax Seydina Omar bi yonent bi demee fatxu Màkk ba dellusi nga xam ni booba lislaam am na doole waaw yonent bi sallallahu alayhi buur yeeg kilifa yi di ko seetsi si te Seydina Omar moom yaakaar na yilif na jazira al arabia kon li war mooy yonent bi day mel ni chef d'état su buur yi ñëwee fekk mu toog ci tróonam waaye moom ba dugg see day fekk yonent bi mu nga tëdd ca taatu garab nekk ci kaw ruum bi poussière beeg ngelaw li di ko di ko di ko di ko di ko upp mu ñëw fekk ko mu tëdd ñu ngi fu kilifa gi nekk waaw xam nga am na kilifa yoo xam ne dangay ngay wër da ñëw di leen seet ñu ne la dafa jàpp ngay wër di xool fu sëriñ bi war a nekk am na ñoo xam ne nag sama kalaas bi booba ñu ngi ci chambre climatisée yi tëdd nelaw waaye am na ñoo xam ne nag boo leen fekkee fa nga leen di fekk buñ la ko wanee nga daw moo tax Seydina Omar bi mu ñëwee fekk yonent bi tëdd ci suuf suuf si takk ci yaram yi mënu ko jugal xanaa xamoon ni léegi yilif nañu àdduna yi àdduna bi xamoon ni buur yi ñëpp nañu waaye mu yàgg mu laaj boobu nag moo moo daw yaram Seydina Omar ndax daf ko ne aturiiduhaa islaawiya ndax da bëgg lii ñu nekk mu islam bu doon ci suñu jamono ñu ni mooy dammeel ak teey ndax danga bëgg léegi nag ñu nekk ay dammeel ak i teey ak i buur loola dafa jeexital ci Seydina Omar ba ni mu fi jóge ak li mu liggéey yëpp su dë su ngoon jotee mu laaj ku ne li nga bëgg ndax am nga li nga bëgg nga ni waaw mu daawaa léegi may dem na dem ba ca taatu garab ga mu mu lal fa mer gàddoom nelaw